asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm li gën a fës seen biir revue say nopp ma yeggale ko moo ngi mel ne ma ne ko waaw na de ma ne ko aji mbergaan daal ma bokkoon ca takk wàllu moo fa ne ko dem fan Pastef ma ne ko la woon ba léegi woon de ma ne ko transhumance gi takar ne ci langu politique gi doon bañ ma ne ko waaw waaw maa la koy yeggale ma ne ko Pastef lam doon wax naan ay eh, rupture wala sax nu ñu langu kenn ku bokkoon ci système bi di ànd ak waaye boo bëggee dëgg dëgg candidat ci élection législative yi ñu jëm eh, eh, ma ne ko doy na waar de ma ne ko doy waar ba doy waar kay laa lay yeggee mbaal ma ñëw ci ma ne ko xoo Macky Sall ab lettre la bind maanaam bataaxal daal daal di koy jébal ay militant moom daal lam cee yeggee moo daal eh, yéen samay militant toog leen samay sympathisant daal toog leen lii dëgg tey dëgg man li ma def ci réew mi bilan am naa ko man Macky Sall maay wax de nee na daal am na bilan bu leer te wóor ma ne ko def na ci réew mi loo xamante ni ma ne ko dara tagga témboow lépp doon dox moom daal Macky Sall ca biir lettre ba sax ma ngay wax ak ngeen ñi nga xamante ni ñoo yor nguur gu bees gi nee na leen yéex eh, doxal leen te sama date bi ngeen nekke li dëgg tey dëgg mooy da ngeen a war a jëlee réew ko feneen fi ma ko indi daal bu yóbboo ko feneen fu gën ma ne ko waaw kay lii la wax eh, eh, li waxu ba waxu kay laa lay ma ne ko quatre-vingt mille ñoo nga xamante ni ci ay liggéeykat nekkoon ci wàllum bâtiment seenub liggéey daa taxaw ma ne France dara dematul dara dikkatul li ko waral daal ma ne fi mu nekk nii oxo ñi ko guuta dama ne ko kuy wallooy wallu ku leen di wallu moo bëggee dégg-dégg daal doy na waar eh, mbokk yi leneen li doy waar kay laa lay wax mu ne ko Sonko Madiambal Diagne seen mbir moom jeexagul ma ne ko Madiambal Diagne ki nga xamante ni mooy avocat Sonko maître Bamba Cissé ma ngay jàmb de moom ko ab lettre la bind jàmb ca bam saf lam ca jàmb kay laa lay yeggee ubbil say nopp ma wax la ko nee na daal ki nga xamante ni moom Madiambal Diagne dañu ko porte plainte yóbbu ko ci yoon wax yow yi wax Ousmane Sonko ma ne ko waxoo day dakk le nee na day dakk maître Bamba Cissé daal nee na yëkkati la ko dakkal ma jamb jamba yi ngay jamb yi nga xamanteni ni ko jambal Ousmane sogo ma ko tey dakk ba jeex kon ma jambal alat yéex ya ya ya ma ne ko du ma yem foofu de baal ma yeggee la kay ci ma jëm ca wàllum làmb ja ma ne ko CNG ma ko am na bu bes kan don lamb lamé ndax dana ko jité du ko jité mu ne ko Malick Gop mu kon arbitre ci CNG ma ne ko wax kay jiite na nag wàllum CNG ba ma ne ko kon fi mu làmb nii làmb ja na doxal lépp ma dox dem feneen yéex fi ma dox jëm kay la lay yeggé bers dal en Ligue des champions bi ma ngay doxal de ma ko doxal na ba mu leer ci ay ndam yo mu am waa daal ligue des champions bi boo bëggee dégg dëgg ka doxalul laa lay yeggee ma ne ko Paris Saint-Germain doxul daa tagga téemé demuñu dikkuñu ma ne ko eh, mbokk yi doy na war léegi fi jëlee na fas seen revue de man nee naa fes